Salut les amis de eSport TV et de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de louer des likes, merci de louer des abonnés. Merci également aux débat ici des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. Les partages et gain d'informations. Bok Sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Rokrou Khari, Gorgo Khari, Niglen Ninek également qui l'a l'hôpital et qui crée février. Yal Nassin Borom Fagsen Bop Miverek Yam. Ninek qui casse Yingram aussi erreur judiciaire. Guinée Ni Dafoul Molen Foyobo. Sin Borom Guinée Nenfe, Delawar Lensen Yabot. Ni Dodo Aduna. Sin Borom Khalen a Jennifer aussi Gaël et Yéhénou. On avance ensemble dans la magie de e d'abord show. L'actualité en continu, gars. Actualité bien facile tani Chelsea, Mida Detaï qualifié, avec également Kylian Nicolas Jackson, passeur décisif, mais aussi qui ramène donc Abib Diarra Dadidel aussi, qui ramène donc Nyom, euh, avec l'équipe nationale du Sénégal. Lolnak, avec l'ingramé donc, l'ingramé 5, analyse bien def un peu aujourd'hui déséquilibre, bien petit liste à l'UCCB, à retrouver sur Baba Show. Gagné 27 ans vidéo, juste après Bini, Inch'Allah, Rabi, nous date que Genti, Yoko, nga xam mooy détails mais également mbokki Sénégal yi wéy leen di jëli seen i carte électeur lii la Ziguinchor 5000 cartes électeurs yoo xam ne jëli seen i carte yi dem leen jëli ko gars yi yi jot na ba pare jëli leen ko ba pare li may wax saa nekk bu leen dem di voté ji foo leen mënti far bu leen yu dara loo xam day nataal fi ngeen bokk wala ki ngeen faral muy brassard t-shirt casquette lu porté parce que yoon da koy ngeen bañu a dara luy firndeel ne fi ngeen far ngeen dem voté ji nak ñi boot seen kër li nak di Italie encore une fois le la Juventus de Turin tenu en échec hein énième euh, match nul benen revers la amant encore match nul contre Genoa la Juve qui n'y arrive pas ces dernières euh, semaines dernières semaines donc en tout cas daal on espère que dina ñëwaat pendant ce temps Harry Kane malgré blessure ci cheville la blessé teewul Dal dafa dem ak Angleterre loolu wa Bayern wax donc pour dem fofu nañ ko fa convoqué mais également suivre li fajam bu fekkee blessure bi grawul et tout en tout cas ñaari staff yi médical ba yan bu Angleterre yi ci liguey ki nga xam également mooy joueur Cancelo mom de du fekkee match il sera absent bien entendu pour le match contre l'Atlético Madrid mu nekk nak absence bu rëy Barça mom tan yi war ngeen xool tamit sen préparateur physique yi wala nu mu sen joueur li ñu blessé mu bari na lol lol lol lool encore buteur gars depuis bo mu dellu ces cannes bi ba léegi c'est quatre matchs trois buts ak Ben passe décisive Hein, donc on a déjà quitté. donc 4 titularisations, 3 buts, belle passe décisive. Bon, il est sur une bonne dynamique depuis Coupe d'Afrique B, bien évidemment. Ninak Diwa, Lorient Gizgenko, Bambadien toujours absent dans le 11. Nous avons donc Formose Mendy donc euh, joué et Formose Mendy bien entendu hein, donc le défenseur sénégalais aujourd'hui il est classé comme arrière latéral alors que club il joue central il a même marqué contre son camp hein. Formose Mendy le joueur sénégalais bon un joueur très excellent comme je dis un joueur d'avenir mais seulement du arrière latéral quoi central ça comme je le dis pour kuy se yaga a joueur bi jëm également ci nga xam donc les Blues de Chelsea ñom ñoo gagné ah, donc ci nga xam donc seen match ah ci quart de finale dal daal di door Leicester 4 buts à 2 Bernardo Silva moo dugal Palmer Chukwuemeka plutôt ak Madueke ñoo dugal ak Tel Disasi ak Stéphane dia ah, Disasi moo dugal contre son camp et ki nga xam donc Nicolas Jackson encore déterminant def na vidéo dem di wax ci li nga xam ne moom mo Mauricio Pochettino daal di xalaat tay il a été l'auteur de la passe décisive modé passe décisive Chelsea bi indi premier but bi sur le but de Cucurella ki nga marqué Nicolas Jackson nank nank na ko moo di tepp tepp mi ngi woy di wane boppam bu baax a baax il a encore été aujourd'hui exceptionnel présent partout et nulle part ma baye len gars yi ngeen passe décisive bu Nicolas Jackson laata ñuy wéyal bien évidemment yenen pàcc ci xibaar mais match bi nak amna ay fait de jeu ndax ki nga xam nak moy donc euh, Ryan Sterling mom tey nekku ci Sterling a eu dafa raté penalty ba paré nak jël ben bal bo xam da ko génne stade bi si stade bi la génne bal bi pendant ce temps Cole Palmer mom mi ngi sur une bonne dynamique dans toute compétition confondue avec Chelsea 16 buts 11 passes décisives ce qui veut dire que 27 fois il a été décisif en 37 matchs aujourd'hui c'est la très bonne recrue la meilleure recrue de euh, de Chelsea Mom la ki nga xam qui donc Nicolas Jackson information c'est toujours un plaisir de vous servir den wax ngeen like des on se retrouve tout de suite à hein, gars ici, Baba Show pour cette vidéo bien sur King nga donc euh, les euh, jeunes de l'équipe nationale du Sénégal avec Habib